ñu ngi ci euh, la dernière journée des collect de la collectivité Lébou de Mbour tey nag euh, ñi doon ko jeexale ak li nga xamante ni moom mooy rawante gaal rawante gaal nag ku ko wax euh, xam na ne pom lébu la. kenn du dem Saalum fële dafa rawante ndax amuñu géej. yow yaay jaraafu. yoof mhm. ban sëñ Souleymane Sarr. say kàddu yi nga xamante ni amoon nga ko diggante démb ak tey fii ci Mbour lan la. lu dul sant ak gërëm gërëm suñu mbokki mbuur yi gërëm fédération bi aussi. ndax lii rafet na lool ñun amuñu dara lu dul suñu culture bu ñu àndee si suñu biir culture nag muy po dëkk yëpp fekk si ñu si jamono bi ñu toll xam ne loo organisé moom coow ñu def ko si jàmm dara yëngatuwu fi bon mbégte dama la di ñaan nag lu mel ni yàlla na fi sax di ñaanal état bi aussi jàppale bi nga xam ne ñoom la jàppale fédération ñu dégg ko yëg ko mu nekk mbégte si kontaan nañ lool. non li ma gis mom tay vraiment dafa nek lu yeme parce que pomi pour mo ag daf daan jafé yalla may ñu organiser que si mu leer nañ ni donc dañuy kontaan xamna amna progrès amna di ñand ak li nga xam mom lañu gis fi comme ko won ak ñu mbaaw yalla ñu fa fekk lu mel non inshallah allah lañu ñaan merci beaucoup yow yaay directeur technique bu ragat bi manam lépp lépp technique yow ya ko jiite Baye Mass ciow yo xaritu mool yi

di jiital si nuyoo bi le président Mbaye Ndiaye fédération fédération Regat di si teg le maire de Mbour ak jaraaf Badou Ndoye di kontaan trop ñun suma mag le grand jaraaf de Yoff Souleymane Sarr mu déplacé Yoff ànd ak délégation bi mu àndal ñëw kooku fierté la pour ñun. ñu jox ñu cër cër bi nga comme ni nga wax ñu nek directeur technique national lepp lu bax ci rawante bi ginaaw yalla lolu moko yor yalla suturaal ñu ba xeer jogul sagu lay jogul jow nañ gal yi man raw ñeneen ñi lañu dem utiwaat ay gal yok seen entraînement vraiment kontaan nañ trop kontaan bo xamne ne fu mu tàmbalee mais amul fu mu yam di remercier nak état bi parce que ñi nga xamne ne ñi japp nañ ci rawante bi yépp président mo joxe ndigal vraiment ñu ngi kontaan trop di len remercier di remercier remercier Cheikh Issa Sall ma ne di remercier le monsieur le maire Cheikh Issa Sall parce que lépp moom la su fi téeméer nekkee soixante soixante yi moo ko def kon nag dañ koy remercier di ko di ko jërë jaajëfal merci beaucoup incha allah jërëjëf